te di ko sàkkul suñu bokki taalibe yi nga xam ne danoo bokk yaakaar sëriñ bi te bëgg nu ku dut ba euh, Cheikh Ibra Faati borom Daarul Muxti seen maam moom rek lañ bëgg kàttanu liggéeyal borom daaru rek la ñuy sàkku te lépp lu nu mës a jëf ci kër borom Daaru Muxti rek fàtte nan ko li nekk sunu kanam la ñu dëg ma kon maa ngi soññaat sama bopp bu baax tey soññaat booleem ku dib murit te aju ci liggéey bi nga xam ne loo fi indi rek sëriñ bi def na lu ko faw daa noppi rek ne cel waaye lu nu fi indi nun sëriñ bi def na lu ko faw da danu dañu koy wax danañu du ngeen ma man mukk ci toolu borom daaru Muxti lu nu fi indi ci ak nu ma mën a toll bu ndikkee fekk fi mu teg teg fi lu ko faw kon nañu gën a jaajewaat gën a takk suñu laxasaay gis nga am murit bis bu demee boo liggéeyalatul sëriñ bi bu boobaa ak dundam jëriñatul dara pertement la kon li ñuy jëriñ muy jëfal sëriñ bi kon nañu gën a farlu bu baax lii sax wërta nekk ay wax xam nga lu nu waroon a def ñëw tàllal suñu loxo rek sëriñ bi ñaanal lu nu dem nekk di wax sax jaru ko woon ndax boo dee wax rek nuru na ne dafa am looy wane mbaa nga am loo bëgg te nun bëggunu dara lu du dee ci sëriñ bi dekk ci sëriñ bi donc amul dara leneen lu soxla lu dul lool liggéeyal sëriñ bi képp ba ba ba ñu indi ñu penkub daaru bii ci tool baay Matar ja loolu dong la ñu soxla alal ji lu mu bari bari fi leen koy bàyyi soxna yi lu ñu rafet rafet fi leen koy bàyyi ak lu mu mën a doon ak nu mu mën a day ak nu mu mën a mel rek bis dana ma sa ñëw buñ takkee suñuy tànk ak suñuy loxo nu wan ko gan lenn donga nu fay jariñ muy jëf ji ñu jëfal sëriñ kon nag nañ ci farlu bu baax a baax a baax baax a baax nañ ci farlu bu baax bu kenn jëf ba naw waaye bu kenn jëf ba sëriñ bi dara ump ko Mbàkke ñi ngi sant jëmm ju baax jii tey sàkku ni ko jëwriñ maam Cerno waxee ngeen ñaanalal na ko mu yàgg fi téwér te ngeen yàgg fi yéen ñii di ay kilifaam lool ci barki Cheikh Ibra Faati ndax jëmm yii turu yàlla rek la leen màndal ku ci gën a néew laa wax lu muy def lu muy def ci guddi guddi lu muy def ci turu yàlla douze mille laa ilaha illa allah allah ki gën néew nag laa wax am na ñoo xam ne ay cent vingt-quatre mille la ñuy def te jëmm ji moo ko def ci ñoom loola waral nag léeg-léeg bu turu yàlla wi jibee ñu soppi ko te duñ ko tey loolu rekk la wallahi lazim ci kalimatu laa ilaha illa allah képp la nu tàggat te loolu defe naa ni kudub julit te nga bëgg ku la tàggat jëmm ji loolu rek la tàggat ñun fii la yaroo ci kër gi ci kër gii la yaroo ci kër sëñ daam faati fi la yaroo kon jëmm ji <laughs> ñun xam nañ li mu def ci ñun wallahi lazim kon Mbàkke ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te te yéen it ngeen yàgg fi te wér lii du dara man de jàpp ma ne dara la wallahi lazim yi des a ëpp wal li ñuy ñaan daal nanu fi dund gi bàyyi waaye lii des a ëpp ñun li nu bëgg ci sunu dund mooy liggéeyal Seex Ibra Faati ba wàccub liggéey amuñu beneen soxla amuñu beneen yitte yitte bu ñu la wax ne am nañ ko rek wallaahi amuñu beneen yitte liggéeyal Seex Ibra Faati rek lañ bëgg kon noo ngi koy sàkku te leer nañu ne wax naa leen ko fii ci bëccëg nee leen fii barab bii ngeen di ñaqe fii trésor la fii lu fi waay jëf des la koy fay bu bu saw ñaq di daanu rek pay ga di daal bu fekkee jëf ja dëgg la nag laa wax bu fekkee jëf ja dëgg la bu say ñaxta di wadd mu la koy fay Cheikh Basirou mii di maam Thierno Ibra Faty nu di ko xoolee Cheikh Ibra Faty xam nañ ne mat na sëkk Cheikh Ibra Faty wallaahi laasim mat na ko sëkk wallaahi laasim amuñu ci lu ñuy sikk sàkk ne mat na Cheikh Ibra Faty mbub mi borom du ko solal ku mu jotul ku ko solal jot na la du la ëpp du la yées da nga koy doon ba ba nga fiy bàyyi ko keneen dikk di ko doon mbàkke kon yàlla na fi yàgg téwér yàlla na yeggale ay naali yi naali naali naal yu magam yu baax yi naaloon ba naal naali boppam loolu rek lañ koy ñaanal ñu ngi tuub bu baax tey jéggul nuyu leen rek. sëriñ bi nee na ngi leen di nuyu bu baax. li ma leen wax mooy ñun liñ leen di liñ leen di woo mooy lii rek. sëriñ bi nee na liñ leen di woo mooy lii rek. daaru gii fii la dëkk. nee na moo moxti gii fii la dëkk. fii la gënee jamono. fii la ganee jamono. waaye baaraam du ma fi joxoñ. nee na waaye baaraam du ko fi joxoñ. moo fi def lii. moo fi def lii. moo fi wax lii. moo fi wax lii. lu nawle mënut a dégg. nee na lu ab nawle mënut a dégg. mbaab taalibe. mbaab yàlla dogalu ko ci moom na yàlla dogalu ko ci moom maa ngi nee na loolu nag mi ngi sant yàlla bu baax jàppeewu ma ko njàmbaar na jàppeewu ko ak njàmbaar jàppee naa ko ndimbalal yàlla waaye da koo jàppee ndimbalal yàlla ñii di ma jëfloo nee na ñii di ko jëfloo te sañ ko te sañ ko am nañ fukk walla téeméer ñu ma romb di wéy ci man-man am nañ fukk wala ay téeméer yu ko romb ci moom mii di wéy ci man-man ci moom mi ci man-man ci wàllu ci ci wàllu koom-koom ci wàllu koom ci wàllu jëf nee na kon. bu nu sëriñ bi santee lii. nee na bu nu sëriñ bi santee lii. bëgg noo dimbali la. bëgg noo dimbali rek la. ndax daa bëgg ñu wetti sunu ñaq. nee na daa bëgg ñu wetti sunu ñaq. def ko def ko ci yoonu yàlla. def ko ci yoonu yàlla. ndax lu mu nu laaj. nee na ndax lu mu nu laaj. liggéey bii lu mu laaj. nee na liggéey bii lu mu laaj. sëriñ bi denc na lu ko ëpp. sëriñ bi denc na lu ko ëpp. mënal ko boppam mënal ko boppam. waaye daa bëgg. nee na waaye daa bëgg. ñuqil sëriñ bi ñoon ñuqil sëriñ bi ñaqal ko ñaqal ko ñukku ñukkil ko ñukku ñukkil ko loolu rek la bëgg ci ñun nee na loolu rek la bëgg ci ñun lii maam Thierno wax léegi nee lii maam na wax léegi Dakar la leen fekk Dakar la leen fekk am na ci ñooñ nee na am na ci ñooñ bi ñuy sama loxo bi ñuy tàbbi ci loxoom ay élève lañ ay élève lañ maa leen tàggat sëriñ bi moo leen tàggat ba ñu doon fonctionnaire ba ñu doon tey ay fonctionnaire am na ci ñooñ société bi soxlawu leen woon. société bi soxlawu leen woon. moo leen tàggat. sëriñ bi moo leen tàggat. ba société bi soxla leen ba so société bi soxla leen tey. ñii fi nekk tey. nee na ñii fi nekk tey. ay chef d' entreprise lañ. ay chef d' entreprise lañ. ñii ay professeur lañ. ñii ay professeur lañ. ñii ay enseignant lañ. ñii ay enseignant lañ. ñii ay commerçant lañ. ñii ay commerçant lañ. ñii ay étudiant lañ. ñii ay étudiant lañ. te mënoo leen a xàmmee. te nee na mënoo leen a xàmmee. waaw waaw li seen at yi ndaw ndaw nii. nee na sëriñ bi nee na li seen at yi ndaw ndaw ni lu ne ci mbooloo nee na lu ne ngi ci biir mbooloo mi ay takk dara ngi fi ay takk dara ngi ci waaye bu sëriñ bi wootee nee na waaye bu sëriñ bi wootee ku ci la nga takkoon na ku ci ne la nga takkoon tekki ko nga tekki ko jébbal ko sëriñ bi jébbal ko sëriñ bi loolu mooy li am solo nee na rek mooy li am solo leen woo nee na lii mu leen woo mooy woote bi yàlla mooy woote bi yàlla ya alladina amanu stajibu lillahi wa li rasuli isa daakum li ma yuyikum wuyu leen woote bi yàlla ak yonente bu leen woo ci lu leen di dundal mu ne wuyu leen woote bi yàlla buñ leen woowee ci lu leen di dundal ak woote bi yàlla ak yonente bi woote bi yàlla ak yonente bi buñ leen woo ci lu leen di buñ leen woowee ci lu leen di dundal lu leen di dundal mooy lii rek te nee na lu leen di dundal mooy lii rek bu nekkoon Dakar nee na bu nu nekkoon Dakaaru ànd ci leneen ànd ci leneen su ngeen may yebut nee na su ngeen ko yebut ci kaw tamit ci kaw tamit da ngeen may yeb ci biir da ngeen ko yeb ci biir miineel dana am miineel dana am waaye yebeel du am waaye yebeel du am li waral loolu nee na waaye li waral loolu mooy mayu ma leen ko ci sama bopp mooy mayu leen ko ci boppam luy tax nit di ma yab luy tax nit di ko yab dama leen def nawle nee na ndax da leen a def ay nawle man leen jaam nee na defu leen jaam defuma leen alal defu leen alal leen def nawle nee na da leen a ay nawle ni ma bëgg mel nee ni mu bëgg a mel moom samay doom mel ni bëgg ay doomam mel ni la bëgg samay taalibe nee na noonu yi la bëgg ay taalibeem mel ni tey jii bu julli jotoon nee na tey bu julli jotoon ay imaam mën nañ leen a tànn ci mbooloo nee na ay imaam mën nañ leen a tànn ci biir mbooloo mi ñu doxal doxal bu leneen jotoon nee na bu leneen jotoon kazalika noonu kazalika naka noonu imaam luy tax nga mën koo doon nee na imaam luy tax nga mën sàmm nga sàmm ci biir sàmm ci kaw sàmm ci kaw ja jàng jàng diine jàng diine ginnaaw ba nga jàngee alquran ginnaaw ba nga jàngee alquran yàlla de am am na ñooy ay lañ nee na am na ñoo xam ne ay ustaas ngi ci biir mbooloo mi kon nee na kon nag lii mooy mbooloom xitma lii mooy mbooloom xitma li mu ci jublu rek nee na li mu ci jublu rek présentation def présentation ndax lu ci bari nee na ndax lu ci bari boo dee dem di ñëw boo dee dem di ñëw nit ñi xamut nit ñi xamut mën nañ laa jox mën nañ laa mën nañ jox adresse bu ne man man nii rek lay liggéeyee. nee na moom nii rek lay liggéeyee. Dakar googu daaree alxuraan jàng fa. nee na Dakar googu daaree alxuraan jàng fa. am na ñoo xam ne. am na ñoo xam ne. fa lañ mokkale alxuraan. fa lañ mokkale alxuraan xattan wa tilaawatan. di fa jàng xam-xam. di fa jàng xam-xam. ba li ñu war a xam seen diine lépp ñu ba li ñu war a xam ci seen diine lépp ñu xam ko am na ci ñooñ gënatuma leen a dañu réer nee na am na ci ñoon gën a gënatu leen a dañ ak réer neexatuñoo nax neexatuñoo nax waaye teewul waaye teewul taalibé Cheikh Ibra Faty lañ taalibé Cheikh Ibra Faty rek lañ taalibé Cheikh Ibra Faty nee na te Cheikh Ibra Faty da koy mat ci zahir da koy mat ci saahir mat ko ci baatin mat ko ci baatin ndax fu Cheikh Ibra Faty newul nee ndax fu Cheikh Ibra Faty nekkul boo joxoñee sa bopp boo joxoñee sa bopp ne ci moom laa bokk ne ci moom laa bokk day feeñ say jëf mu feeñ ci say jëf boo feeñ sa wax feeñ ci say wax feeñ sa melo melo feeñ ci saw melo loolu nag sant nañ ci yàlla bu baax nee na loolu nag sant nañ ci yàlla bu baax kon nag lii tàmbali la nee na kon nag lii ab tàmbali la waaw baa nga ca kanam nee na liggéey baa nga ca kanam bu ma sañoon sax kaddu yii du am nee na bu sañoon sax kaddu yii du am ndax léegi bi ma mi naan sëñ bi da waroon naa ñëw ñaanal leen soo dama ko nanu dimbali ba ñuy joxe caabi nee na bi ko sëñ atteex ne sëriñ bi waroon naa ñëw ñaanal leen dana ko nañu dimbali rek ba ñuy joxe caabi ji loolu rek lañ bëgg. nee na loolu rek lañu bëgg. Euh, sunu xel dal na ci lool. nee na sunu xel dal na ci lool. ndax maa ngi tàmbali nii di liggéey. nee na mi ngi tàmbali nii di liggéey. am ñu may woo. am ñu koy woo. naa ma lal baa ngi fekk. Ah, ñu koy wax naan ko lal baa ngi fekk. ñii naan ma fëtëy yaa ngi fi. ñii naan ñii naan ko fëtëy yaa ngi fi. nga xam ne bu gaa yi yeexoon. nee na nga xam ne bu gaa yi yeexoon. li ci war a dugg mën na leen fee fekk. li li ci war a dugg lépp mën na leen fee fekk. te man bokkuma ci kuréel. nee na te moom bokkul ci ay kuréel. bëriwuma lu may tukki. bëriwul lu muy tukki. Dakar gee ma nekk. Dakar gee mu ne. yéen ñii di sama njaboot. nee na ñun ñii di ak njaboot njabootam xam ngeen ne ngénte may tax a génn nee na xam ne ne ngénte moo koy tax a génn mbaa am njaal mbaa am njaal dina am ñaari at nee dina am ñaari at wala ñetti at wala ñetti at sama buntu kër googu du ma ci taxaw buntu këram googu du ci taxaw kon maa ngi sant yàlla bu baax a baax nee na kon mi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ngi sant yàlla bu baax a baax nee na mi bu baax a baax la ko waral na loola nag la ko waral mooy jamono mu jug jamono gàttu làmmiñ gàttu làmmiñ taxoog sa kër taxoog sa kër loolu rek la nee na loolu rek la ak bañ ngeen di xeex ci mbedd mi nee na ak it bañ ngeen ci mbedd mi rek bu doon ne lu ne ma dugg ca nee na bu doon te ne lu ne mu dugg ca lu ne ngeen gis ma ca li na ngeen gis ko ca euh, kilifaak kam yilif kilifaak kamu yilif ak la ca dox takkee leen ci cofeel ak la ca dox ci takkee ci cofeel bis bu set ngeen xeex ci mbedd mi bis bu set nu xeex ci mbedd mi loolu lay bañ nee na loolu nag lay bañ moo tax ma jàpp sama njàmbur nee na looloo tax mu jàpp njàmburam mel ne dara sëfu ma nee na mel ne dara sëfu ko lépp laa xam nee na fekk lépp la xam waaye damaa doylu rek nee na waaye daa doylu rek bu amee ab junni doy na ma at mi doy na ko at mi yëpp ñoo ngi nii toog nee na ñu ngi nii toog amu ci benn taalibe boo xam ne amu ci benn taalibe boo xam ne mos na laa fëgg ne la kaay dimbali ma ci courant kaay gi ne la kaay dimbali ma ci courant wala kaay dimbali ma ci ndox wala kaay dimbali ma ci ndox wala may ma nangam wala may ma nangam cib télé lay waxee nee na cib télé lay waxee ba ca ña ca bitim réew nee na ba ca ña ca bitim réew du ma leen ko def nee na du leen ko def musuma koo def tamit kenn nee na musu koo def kenn nit nag bu ma leen woowee rek nee na saa bu leen woowee rek lu jëm ci yàlla laa leen doy lu jëm ci yàlla rek la leen doy sama yittey bopp yittey boppam sama yittey bopp nee na moom yittey boppam sama doole dooleem sama xel am xelam ci sàkku leew ci sàkku lu leew mënal naa ko sama nee na moom mënal na ko boppam parce que tëdduma nelaw nee na ndax moom tëddul nelaw munuma leen a yar nee na munu leen a yar tàggat leen tàggat ngeen man seen bopp ngeen man seen bopp ma tële sama bopp moom muy tële boppam nag kon nag fii rek laa nee na fii rek la ne dewuma fenn demul fenn jaxasoowuma jaxasoowul duggul génnuma génnul politiguma politigul bokkuma ci kuréel bokkul ci ab kuréel bokkuma ci association bokku ci ab association amul ay tubaab amul ay tubaab amul i naar ah waaw xam nga xam nga aminaar sëriñ bi nee xam nga aminaar aminaar aminaar mooy ñiy dem ci dëkki yi mooy ñiy dem ci dëkki yi di laaji di dem di laaji asaka moslu aka moslu ñooñu lay wax aminaar nee na ñooñu lay wax aminaar bu dee kii ngay wax nee na bu dee kii nag di soxna suwaado du ab naar ab shérif la naar ak shérif du benn nee naar ak shérif duñu benn benn du ñu benn umay naar nee na moom amuli naar umay tubaab amuli tubaab daaru gii ma dëkk nee na daarul moti gii mu dëkk magi taalibe yi yaakaaroon sëñ daam magi taalibe yi yaakaaroon sëñ daam ñi ngi fi ñi ngi fi lajaluma kenn ci këram nee na lajalul kenn ci këram lu ma am lu ma am bokk ak ñoom te nee na lu ma am bokk na ko ak ñoom bu dee yéen ñii toog nee na bu dee ñun ñii toog lajaluma kenn lajalul kenn ci këram loole nag la ma ci jublu nee na loolu nag li mu ci jublu bañ leen a jooyloo ci mbedd mi bañ leen a jooyloo ci mbedd mi wala ma leen di xeexloo wala mu leen di xeexloo wala ma leen di xulooloo wala mu leen di xulooloo moo tax ma wàññi say bëgg nee na loolu tax dong ma wàññi bëgg bëgg ma waaye noo ngi sant bu baax nee na waaye ñi ngi sant bu baax ñoom ñu am jom lañu nee na ñoom ñii ñu am jom lañu bu màggal ñëwee bu màggal ñëwee lu mel nii wala lu mel nii daa daanaka Pastef bi ñu ciy doxee nee na daanaka Pastef bi ñu ciy doxee da nga da nga naan sax seeni at yëggagu ca da nga naan sax seeni at yëggagu ca bëgg lu baax rek moo leen yóbbu ci te nee na bëgg lu baax rek a leen yóbbu ci loolu mënuma leen ci eh, li ñuy wax xiyaamu layli nee na mënu leen ci li ñuy wax xiyaamu layli ka nga ca gis mbubbam gën a suufe ka nga ca gis mbubbam nuru luy gën a suufe ba ci jigéen ñi ba ci jigéen ñi xiyaamu lay li la ñuy def xiyaamu lay li rek la ñuy def di dikkër nee na di sikkër te feeñ na ci seen xaal nee na te feeñ na ci seen i xaal ndax yàlla kenn mënut a tirise ci moom. nee na ndax yàlla kenn mënut ci moom. lii da lay def ak ñoom. nee lii rek lay def ak moom koy njëkk a def ak di leen joxi kurus. di leen tarbiya nee na bi mu koy njëkk a def nag di ñu joxi kurus di ñu tarbiya. ñu ne Serigne Aydara turi jinne lay joxe. ñu ne Serigne Aydara ay turi junne lay joxe. laa ilaaha illa mooy turi junne. nee na ndax laa ilaaha illa llaah mooy turi junne. bàyyi ko bàyyi ko moo jàpp ndaw moom loolu loolu sëriñ bi nee na loolu biral gi biral gi mooy mooy mooy danoo dëkk ci dëkk bi rek mooy danoo dëkk ci dëkk bi rek ngeen di ay ay ak njaboot nee na nu di ay njaboot ma di ko samay bokk mu di ko waxtaanee ay bokkam am na am na ñooñ nee na am na ñooñ duñ la tuddee sëriñ bi duñ la tuddee sëriñ bi di la jege di la jage la lay leen di jox xaal la leen di jox xaal dañuy naan sangara dañuy naan sàngara mbaa ñu tux yàmba mbaa ñu tux yàmba door aalo waaye mandi ci turu yàlla nee na waaye mandi ci turu yàlla di zikr di zikr ba fees dell ba fees dell loolu loolu mooy li am solo nee na loolu li am solo loolu la sëriñ bi doon tàggate te nee na loolu la sëriñ bi doon tàggate ñi mu àndal doon tarbiya moom la leen doon tarbiya moom de laa ilaha illallah lay joxe sëriñ bi nee na moom de laa ilaha illallah lay joxe te ala bi zikrillahi te ala bi zikrillahi tatmainul xulub tatmainul xulub istixfaar istixfaar salaatu ala nabi salaatu ala nabi boo ñëwee ma jox la ko mu jox jox jox lay dog ci xasida yi nee jox lay dog ci xasida yi sëriñ yi ci alquran jox la dog ci alquran loo ca ñambaas ci naafila loo ca ñambaas ci naafila tajful madajia tajful madajia fii laylin junubuhum naasina salma wa layla bil musharati rek waaw ñu ñu ñu gàdd gàddaay lal yi nee na ñu gàddaay lal yi ak salma ak layla ak salma ak layla wuti seen borom wuti seen borom foofu rek laa leen awal sëriñ bi nee na rek la ñu moo tax ma yori dof nee na loolu dong nga tax nag mu waaye dof yi dañoo fanaaw seen borom nee na dañoo fanaaw nag seen borom ndax man la mag ñi doon tarbiya ca laa ne de nee na moom la mag doon tarbiya ca la muy muy tasawuf muy tasawuf di yar nit ñi ci tasawuf di yar nit ñi ci tasawuf raar gi mu raar nee na raar gi mu raar moo tax ku ko laal rek nee na moo tax ku ko laal rek tuuma daal di am tuuma dañuy tox yamba dañuy tox yamba dañuy taxawaalu dañuy nangam nangam alhamdulilahi rabbil alamin waaye sëriñ bi nee na alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ Basiru mii Cheikh Ibra Faati nee na sëriñ Basiru Mbàkke mii Cheikh Ibra Faati joxoñ bii mu def nee na joxoñ bii mu def bu seen xol yi sellutoon nee na bu seen xol yi sellutoon mu xam ne bu leen santee lii ngeen defal ko ci lu léwut nee na mu xam ne bu leen santee lii ngeen defal ko ci lu léwut lu nu sàcc nee na du nu sàcc lu nu sàcc lu nu sàcc bu ngeen defal ko ci luñ sàcc ngeen defal ko ci lu ñu sàcc mbaa lu ñu wor mbaa lu ñu wor mbaa lu ñu jaayee drogue mbaa lu ñu jaayee drogue wala lu ñu rayee nit mbaa lu ñu rayee nit wala lu ñuy jëlee ci ay kuréeli euh, góor jigéen wala lu ñuy jëlee ci ay kuréeli góor jigéen wala kuréeli franc-maçon wala kuréeli franc-maçon du leen ko defloo fii nee na du leen ko defloo fii kon kenn ku ci ne nee na kon kenn ku ci ne la muy yor la muy yor bari ga amul solo bari ga amul solo néew ga néew ga te lew te lew te sakkuun wa te sakkuun wa awu yoon awu yoon loolu rek mooy li am solo loolu rek kay li am solo loolu dong la leen doon jotal sëriñ bi nee na lii rek la leen doon jotal ngeen bàyyi xel ci loolu nee na bëgg nag ngeen bàyyi xel ci loolu ngeen doon tabax fii ay gratte-ciel nee na bu ngeen doon tabax fii ay gratte-ciel te seen xol yi yàqu te seen xol yi yàqu am benn njariñ nee na amul benn njariñ bu ngeen fi defalee sëriñ bi benn néeg nee na bu ngeen fi defalee sëriñ bi benn néeg te defaru te defaru néeg boobee néeg boobee sëriñ bi du ko yemaleeg benn néeg sëriñ bi du ko yemaleeg benn néeg kon kon nag lii rek mooy samay kàddu ci loolu lii rek moo di ay kàddoom ci loolu ñii ngeen gis nee na ñii ñu gis samay mag lañu ay magam lañu samay doomi baay lañu ay doomi baayam lañu ay xarit lañu ay xaritam lañu ay wëllëre lañu ay wëllëreem lañ muy sëñ Moustapha mii muy sëriñ Moustapha mii ak njabootu sëriñ Basiru gépp sëñ bi da ko ne sëriñ bi da ne bu sëñ ay dara ñëwati bu sëriñ ay dara ñëwati li mu bëgg añee li mu bëgg a na la ko wax na la ko wax nga fanaanoo ko nga fanaanoo ko boo xëyee toggal ko boo xëyee toggal ko ko kon xam nga sànce bi tubaarkàlla nee na kon xam nga sànce bi tubaarkàlla euh, koo xam ne booy ñëw yaay commande nee na koo xam ne booy ñëw yaay commande ñoom ñii ñëpp nee na ñoom ñi ñëpp seen kër yi seen kër yi dañuy togg dañuy togg seen njaboot yi yanu ko seen njaboot yi yanu ko ñu ñëw fii ci keppaar ñu ñëw fii ci keppaar gi añee fi añee fi waxtaanee fi waxtaanee fi kon liggéey bi nee na kon liggéey bi diisul diisul ndax samay bokk dañ ma koo yanu le neena ndax ay bokkam dañ ko koo yanule bu ma ko sëñ bi joxoon nee na bu ko ko sëriñ bi joxoon menn man ak garab gi moom menn man moom dong ak garab gi ak donga yi ak donga yi dana diis dana diis dana dana wéet mais diisut. nee na waaye diisut. te weetu ma ci te nee weetu ci. te mbégte laa ci àndal. nee na te mbégte la ci àndal. te lu ma gën a xëy rek. te nee na lu mu gën a xëy rek. gën a am di gën a am mbégte. nga xam ne bu bu bu doon na yàlla may na ma ma ma ma mën a jekki rek. Euh, melal ko ni ko sëñ bi bëggee nee na bu doonte ne yàlla may na ko mu mën a jekki-jekki rek melal ko ni ko sëriñ bi bëggee du ngeen dellu si tey la sëñ bi sanc nee na tey jii kon la sëriñ bi sant du ngeen sanc du ngeen dellu si laa ci am nee na yéen ñi jooñu rek la ci am kon nag ma di leen béral nii ma leen waxee sëriñ si bañ xam ñi ma àndal ne duñu ay waye waye yu taxawaalu nii mu leen waxee sëriñ si ay ñi mu àndal ne duñu ay waye waye bay taxawaalu noonu laa leen di béralee ne man it bokk yu baax la am noonu la leen di bérale tamit ne ay bokk yu baax la am yoo xam ne yoo xam ne wéetuma fii wéetul fii lépp ak may fekk nee na seen lépp a ngi koy fekk seenu wéttali rek doy na nee waaye waxuma nag seen i njariñ nee waaye waxut nag ak njariñ seen i dallu seen kër sax mënatuñ nee na dallu seen kër sax mënatuñ seen intimité sax dama koo dagg nee na seen intimité sax daanaka da koo dagg ay suuf yanke fi ne ñoo ne lëlu durus durus jàng xasida jàng xasida wérd leen génne kenn leen génne man rek maa leen génne moo leen génne fii waaw kon man it nee na kon moom ñaanal leen ngeen ñaanal leen yàgg fi lool yàgg fi lool te wér te wér mission bi leen sëñ bi doxloo mission bi leen sëriñ bi doxloo ñu am ca lu kawe njort ñu am ca lu kawe njortu sunu way jur wi tamit sunu way jur wi tamit yàlla guddal aw fanam yàlla guddal aw fanam fekk ko fekk ko wéral ko wéral ko ba li mu naal ba li mu naal sumb ko sumb ko mu yeggale ko mu yeggale ko naalaat yeneen naalaat yeneen sumb ko yeggale ko yeggale ko ba bam koy soob rek ba bam koy soob asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah ne ci kàddu Serigne Moustapha mu Basiru. mu jëlee ko ci wax ne nañ leen ko jottali. mu wax ni nan lu ko jottali. ñu jottali ci turu njaboot gi yëpp. nee ñu jottali leen ko ci turu njaboot gi yëpp. njabootu borom daaru gi yëpp. borom daaru gi yëpp. ndax keppaar gi ñu toog tey. ndax ne keppaar gi ñu toog borom borom la. wax wax ne muy wax ju am solo. kon Serigne Moustapha nee na. kon sëriñ mu Moustapha nee na. ci turu sëriñ bi. ci nee na Serigne dara mi ngi sant njaboot gi bu baax a baax. nee Serigne dara ne mi ngi sant njaboot gi bu baax a baax. ci Pastef gi. ci Pastef gi. ak taxawaay bi. ak taxawaay bi. ndax. ndax. bokk yëpp seen xel dafa dal. bokk yëpp seen xel dafa dal. ndax eh, ci jamono yi fi Serigne Touba di nekk. ne ci jamono fii Serigne Touba di nekk. dafa mas a am bis. dafa mas am bis. am ku jóge ci maam Thierno. am ku jóge ci maam Thierno Birahim. dem ci sëñ Touba. dem ci sëñ Touba. di wax waxi boppam. nee di wax waxi boppam. lu mel ni daal dellu si na. lu mel ni daal dellu si na. ci ci sëriñ Touba. ba mu ko waxee ba noppi. nee ba mu ko waxee ba noppi. mel ni sëñ tàng lool. mel ni sëriñ tubaa dafa tàng lool. daal ni nit ñi de. daal ni nit ñi de. ñu ci bari dañoo xamul seen bopp. ñu ci bari dañoo xamul seen bopp. koo xam ne lim yor lépp. koo xam ne lim yor lépp. jox na ko nit. jox na ko nit. mu di ko ko séddaleel. mu di ko séddaleel. nga bàyyi ko fa di ñëw ci man. nga bàyyi ko fa di ko ñëw ci man. dañuy sonal seen bopp te duñ fi amee dara. nee dañuy sonal seen bopp te duñ fi amee dara. buñ xamoon la ñuy def. buñ xamoon la def. dañuy toog ci cernu moomee. dañuy toog ci cernu moomu. ndax ku fa toog. ndax ku fa toog. la may séddale. la may séddale. dana la ci sédd. dana la ci sédd. toogee fii nag. nee boo toogee fii nag. coow li coow li. ak rëg-rëg ji. ak ngay rey sa bopp. ngay rey sa bopp. fekk dara nekkatu fi. fekk dara nekkatu fi. la ma lépp jox naa ko. nee man Serigne Touba la ma yoroon lépp jox naa ko borom Darou Mouti. kon nag sëñ dara. kon sëñ ay dara Mbacke. su xamee cër boobee. su xamee cër boobu. mu xam ne maamam moo ko jox. mu xam ne maamam moo ko jox. te maamam. te maamam. moo war a buddil ñëpp seen géttu sawara moo war a buddil ñëpp seen gétt yi sawara mu gedd fi kër baayam gi nee mu ba gedd fi kër baayam gi gedd kër maamam gi gedd kër maamam gi te keppaar yi ak kër yi neex lool nee te keppaar yi ak kër yi neex lool toogandoog mbokk yi neex lool nee toogandoog mbokk yi neex lool lekk yi neex lool lekk neex lool jàmm ji neex lool jàmm ji neex lool nga ne ko fi ñukk dem Dakar nee nga ne ko fi ñukk dem Dakar ngir ña fa nekk ngir ña fa nekk seen gétt boobee. seen gétt boobu. nga war koo buddi. nga war koo buddi. xëcc leen. xëcc leen. indi leen ci borom daaru. indi leen ci borom daaru Muxti. googu pay kenn mu pay. nee googu pay kenn xamul nu mu toll. kon sëñ yaay dara. kon sëñ yaay dara. loolu la def. loolu la def. ndax fii nu toog. ndax fii ñu toog. ñoo ci yem ab sañ ñoo fi yem ab sañsañ ñoo fi yem lépp. ñoo fi yem lépp. te daaru Muxti. te daaru Muxti. bu la neexee nga nelaw ba midi. bu la neexee nga nelaw bu midi. kenn du la déranger. kenn du la lu la neex nga def lu la neex nga def ndax sa dëkkub maam ndax sa dëkkub maam la boo sumee say dàll ñu yoral la ko ne boo sumee say dàll ñu yoral la ko boo waxee ñëpp nees kay boo waxee ñëpp nees kay jàmm ji it a ngi fi ne jàmm ji it fi kon soo amul woon jom kon ne boo amul woon jom bu la neexee nga toog fii bu la neexoon nga toog fii waaye jom képp la yóbbu fee waaye ne jom rek la yóbbu Ndakaar te wóor na leen ne te wóor na leen fa borom daaru am ñëf fa borom daaru am faaw nga xëcc leen faaw nga xëcc leen indi leen fii indi leen fii te boo leen indee fii te boo leen indee fii mooy seen njariñul àdduna mooy seen njariñul àdduna mooy seen njariñul àllaaxira ne mooy seen njariñul àllaaxira ndax ku la yóbbu ca kay séddale ndax ku la yóbbu ca kay séddale sam xel war naa dal ne sam xel war naa dal ndax xam nga ne balaa jël loxoom ndax ne xam nga ni balaa jël loxoom di sedd kenn di sedd ken dana la sedd ba noppi dana la sedd ba noppi kon yéen ñii kon ne ñun ñii na seenum xel dal ndax ñëw ngeen ci kër kuy séddale. ndax ñëw nañ ci kër kuy séddale. kër kuy séddale ku fay ñëw nag. nee kër kuy séddale ku fa ñëw nag. toog ca wetam. toog ca wetam. yaakaar naa kenn du la ca ëppale. nee jàpp naa ni kenn du la ëppale. kon seen xel war naa dal. kon na sunu xel maa seddal dal. te ki ngeen àndal. te ki ngeen àndal. di sëtub kii seddale di sëtub kii séddale. loolu war naa dalum xel. nee loolu it war naa dalum xel. waaye boo doonee sëtub kii séddale ba noppi nag. waaye nee boo nekkee sëtub kii séddale ba noppi. nga am sa jomi bopp. nga am sa jomi bopp jaar ca tànk ya jaar ca tànk jaar ca yoon wa jaar ca yoon wa loolu it war naa dalum xel ne loolu it war naa dalum xel te maa ngi koy wax Cheikh Awa Balla ñoom ne tamit koy wax Cheikh Awa Balla mii biñ ci bëccëg biñ toogee ci bëccëg ma ne leen ñun ñu fi toog ñëpp mu ni ko ñun ñu fi toog ñëpp way juróom wu baax wa way juróom wu baax wa di sëñ daam Faati di sëñ daam Ahmadou Faati ñun ñëpp xam nan ko ñun ñëpp xam nan ko bi mu fiy jógee bi mu fiy jógee ko fi bàyyil lu mu ko fi bàyyil du alal du alal du mboolo du du dara du dara. jomi boppam rek. nee jomi boppam rek. te xam ne li sëñ Tuubaa waxoon. te xam ne li sëñ Tuubaa waxoon. jub te tege ci yoon wi. ku jub te tege ci yoon. ma ànd ak yow ma ànd ak yow. loolaa ko may lii moom nee loola may sëñ Aydara lii. moo ko baataral boppam nee sëñ Aydara boppam. ba mu agsi fii mu agsi. ba mu agsi fii mu agsi. te yéen ñi fi topp yëpp. nee te yéen ñi fi topp yëpp. li ngeen di ñàkk ñàkk kii. li ñuy ñàkk ñàkk kii. bu meloon na neen. bu meloon na neen. ngeen bàyyi ko fi ñu bàyyi ko seen i intérêt rek ngay tax ne suñuy intérêt képp lañ ko topp seen bëgg seen bànneex rek tax ngeen nee suñu bànneex képp lañ ko topp seen bëgg-bëgg képp ngeen suñu bëgg-bëgg képp lañ ko topp ndax gis ngeen ko ndax ne gis nañ ko mu nekk mu bokk ci borom daaru mu bokk ci borom daaru gën leen a woyof gën noo woyof mën a jaxasoog yéen mën a jaxasoog ñun mën a jëli nit fu sori mën a jëli nit fu sori te ñoom ñii te ñoom ñii damay wax ne ñu bari war nañ leen a sant ci askan dañuy wax ñii ñu bari dañ leen war sant ci askan ndax sëñ yaay dara ndax sëñ dafa am foo xam ne. dafa am foo xam ne. àgg fa yombut. àgg fa yombut. baaxug yàlla rek fay mën a. baaxug yàlla rek moo fay dimbali nit. ba nga mën fa àgg. ba nga mën fa àgg. waxuma la di fa jëlee nit. waxuma la ak di fa jëlee nit. di ko indi di ko indi. lu jafe la lu jafe la. te ñoom ñii. te ñoom ñii. dañuy dem ba àgg foo xamante dañuy dem ba foo xam ni. léeg-léeg ñu gis foo xamante léeg-léeg ñu gis foo xam ni. société bi société bi. kenn bëggatu kenn bëggatu kenn soxlaatu leen. kenn soxlaatu ba ca bokk yi leen. ci bokk yi leen juróon. dañ leen di abandonné leen di waaye moom waaye moom xam gum xam ne xam gum xam ni ñii dañoo war a dellusiwaat ci société ñii dañoo war a dellusiwaat ci société war a bokkaat dañ cee war a bokkaat day tax day tax mu summi mbubbam mu summi mbubbam ba tolloog ñoom ba tolloog ñoom dem jël leen dem jël leen indi leen fi nga yor indi leen fi wax kon li nga doon wax léegi kon li nga doon wax léegi du man a ñàkk mukk du mën a ñàkk mukk faaw mu yam faaw mu yam ndax nit ki ndax nit ki su fekkente ne danga ngaa bëgg jëfandikoo lu suufe bu fekkee da ngaa bëgg jëfandikoo lu suufe ba yóbbu ko ci lu kawe ba yóbbu ko ci lu kawe faaw tuuma topp la faaw tuuma ndax ñu bari ndax ñu bari danañ ne lu tax mu jaxasoo moom danañ ne lu tax ñu mu jaxasoo ñoom ka xamut ka xamut da koy féetale ca la kooka di def da koy féetale ca la kookay def waaye ca xam moom dana xam waaye ki xam moom dana xam ndax boo gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ne boo gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën ñëpp gën ñëpp li ko jiitu woon ci yonente bari na li ko jiitu woon ci yonente bari na waaye mu mujj ci yonente yi waaye mu mujj ci yonente yi ba pare gën ci yonente yi ba pare gën ci yonente yi li ko waral du dara li ko waral du dara mooy suufe gum suufe mooy suufe gum suufe rek lu yonente yi daawul def ne lu yonente yi daawul def ñàkk a bañ a mën a toog ak nit ñi ñàkk a mën a bañ a toog ak nit ñi ngir seeni aal ngir seeni aal waaraate gu mënta jot waaraate gu mënta jot ngir seeni aal ngir seeni aal àgg ci yàlla àgg goo xamante àgg ci yàlla àgg goo xam ni mënta jox soog nit ñi yonente bi ne yonente bi daa amoon loolu lépp daa amoon loolu lépp ba pare am woyof teg ba pare am woyof teg mën a jaxasoog nit ñi mën a jaxasoog nit ñi tooga ki soxnaam di fo toogaa ki soxnaam di fo di wuufi doomam di wuufi doomam di toog ak taalibe yi di kaf di toog ak taalibe kaf di dem ngénte di dem ngénte di dem dëj di dem dëj di demuk ceet di dem ceet di dem sarax dem sarax di dem lépp di dem lépp ndax soo ko defee ndax soo ko defee la nit ñey làmboo foofa ca biir la nit ñey làmboo foofa ca biir lu baaxul te lu baaxul da nga koy da koy xam te bis boo ko xamee rek boo ko xamee mën koo jubbanti mën koo jubbanti kon moo la dal ci kon ne Mbàkke loolu moo la kon antuma jooju ngay wax. jërta daw jërta daw. jërta bañ jërta bañ. ndax sa euh, tey jii sa waajur wi nekk fii. nee wa sa tey sa waajur wi nekk fii. borom daaru mii tey. borom daaru mii tey. nga xam ne lépp mooma. nga xam ne lépp mooma. luñ ko tegul ci tuuma amul. luñ ko tegul ci tuuma amul. luñ ko tegul yàkkut amul. luñ ko yàkkuwul amul. luñ ko defut amul. luñ ko deful amul. fam àggoon fam àggoon yaakaar naa jege goofa sax nee yaakaar naa jege goofa ndax génne nañ ko ay këram ndax génne nañ koy këram taal ko taal ko ko ci bitti mu ko ci bitti mu fanaan ci kenn nangu koo fat kenn nangu koo fat kenn ku nekk di ko daw ne kenn ku ne di ko daw te moom ñëpp bokkoon ne te moom ñëpp bokkoon waaye kenn nangu ko fanaanoo waaye ne kenn nangu ko fanaanoo kenn nangu ko tëroo kenn nangu koo tëroo kenn nangu koo dugal këram kenn nangu koo dugal këram bis bu nekk bis bu nekk ñu yëkkati la gën a tuuma gën a yëg tuuma yi a bon teg ko ci kawam teg ko ci kawam waaye lu mu wax waaye lu wax lii ma sëriñ tubaa sant lii ma sëriñ tubaa sant danaa ko def danaa ko def ndax xam naa ne lu mu santaane rek ndax xam naa ne lu mu santaane luñ man la luñ man la kon sëriñ Aydara kon sëriñ Aydara na sa xel dal na sa xel dal njaboot gi yëpp seen xel sedd njaboot gi yëpp seen xol sedd te ni nga ko waxee te ni ko waxee noonu la amee noonu bërëb bii ñuy jàkkaarloo. béréb bii ñuy jàkkaarloo. lu mat 60 millions. lu mat juróom benn fukki millions. wala 70. wala juróom ñaar fukki millions. dem na ci dem na ci. muy jàkka ji muy jàkka ji. te sëñ Basiru mosu ko wax ci rajo. te sëñ Basiru mosu ko wax ci rajo. mosu ko wax ci télé. mosu ko wax ci télé. mosu ta woob taalu bi ne ko jàpp ci. mosu ta bi ne ko jàpp ci. mosu koo def dara mosu koo def dara. daa yëkkati alal boppam def ko ci. daa yëkkati alal kon bu la jëlee tey. kon bu la jëlee tey. defar loolu ab bâtiment fii. defar loolu ab bâtiment keroog bañ ci waxee keroog bañ ci waxee lam ca teg dafa am solo lan ca teg dafa am solo daf ne daf ay dara daa amul dara ay dara daa amul dara moomul dara dara lam am lépp maa ko moom am lépp maa ko moom su ma ko laajoon lam am su ma ko laajoon am Dakaaru mu jox ma lépp mu jox ma lépp te doo te ñëw kon loola kon loola dal na am xel dal na am xel kon dafay wane ne kon dafay wane ni moom ku la yàgg def ci boppam moom ku la yàgg def ci boppam ndax yow wax nga ko ndax yow wax nga ko la muy doon doon sa baay la muy doon doon sa baay doon doon sam borom daaru tey la muy doon doon sam borom daaru tey bu doon ci wàllu cëriñ sëriñ rek bu doon ci wàllu sëriñ rek sab sëriñ la sab sëriñ la ndax ku xamal aw araf rek ndax ne ku xamal aw araf sab sëriñ la te jàngal na la te jàngal yaakaar naa ñi mu ko def bëriwut ne te yaakaar naa ñi mu ko def bëriwut cofeel googa kon cofeel googu mooy dund ba tey mooy dund ba tey su xeeboon sa alal ne bu xeeboon sa alal wala mu sib ko wala mu sib ko wala bëgg ko wala bëgg ko wala mu xam ne dara nga ci sikk wala mu xam ne dara sikk na ci ndax jataay bii mu toog tey ndax jataay bii mu la waaye borom daaru la li ma wóor bu ca gisoon dara bu ca gisoon dara mu wër ko ni lii lu wër taxi la mu wër ko ni lii lu wër taxi la du la ko def loo du la ko def loo kon daa gis ne lépp lu sell la kon gis ne lépp lu sell la lu mu la war a def loo la a def loo la kon nag bokk yëpp sant nañ kon nag bokk yëpp sant nañ yéen taalibe yi jóge Ndakaaru yéen taalibe jóge Ndakaaru na ngeen xam ne béréb bii ngeen am na ngeen xam ne béréb bii ngeen am béréb bu jara puukare woo la béréb bu jara puukare woo la bu jara damoo la bu jara damoo la man dama ciy joxe exemple lu bare bare da ciy joxe exemple lu bare bari waana bari waa na kër goo xam ne da fa dugg kër goo xam ne da nga fa dugg nit jiite fa njaboot ga nit jiite fa njaboot ga ba jóge fa ba jóge fa doom yi kenn du ci tuddanteeg morom doom yi kenn du ci morom waxuma la ak seen seen seen morom yi doom ne waxuma la seen morom yi na kippaar gi tey boo fi ñëwee ne kippaar gi boo fi ñëwee tey sëriñ Abbas yàlla na ko yàlla xaare àjjana sëriñ Abbas yàlla na ko yàlla xaare àjjana tey njabootam tey njabootam ñoo jiite liggéey bi ñoo jiite liggéey bi ñoo fi njëkk ñoo fi njëkk ñoo fi mujj ñoo fi mujj boo ñëwee boo ñëwee njabootu sëñ Dame Faty njabootu sëñ Dame Faty ñoo jiite liggéey bi ñoo jiite liggéey bi ñoo fi mujj ñoo fi mujj njabootu sëñ Soubayru njabootu sëñ Soubayru ñoo jiite liggéey bi ñoo jiite liggéey bi ñoo fi mujj ñoo fi mujj njabootu sëñ Xaalit njabootu sëñ Xaalit ñoo jiite liggéey bi ñoo jiite liggéey bi ñoo fi mujj ñoo fi mujj ku ñëw ci kippaar gi ne ku ñëw ci kippaar gi da nga fi fekk njabootu borom daaru da nga fi fekk njabootu borom daaru gi yëpp loolu nag lu borom daaru jëmbat ci ay njabootam ne loolu lu borom daaru jëmbat ci njabootam la waaye sëñ ay dara daf koo dëggal waaye ne sëñ ay dara daf koo dëggal ndax bokk na ci sax ndax bokk na ci sax jataay yi ñuy toog sax jataay yi ñuy toog bu day léeg-léeg day toog sax ñuy ñuy añ ba mu yàgg. ne léeg-léeg day toog ñuy añ ba ci yàgg. mu ne lu ngeen bëggal rek. mu ne lu ngeen bëggal rek. lan ngeen bëgg lan ngeen bu ñëpp ne cell bu ñëpp ne cell mu dem wuti la nga ne moom la nit gën a bëgg ne mu dem wuti la la la yaakaar ne moom la nit gën a bëgg ne te nit ñi dañ ko kenn ku ci nekk tey kenn ku ci nekk tey suñ soxna yi ku fi ñëw da nga koy waaj suñ la ne muy kafak muy kafak agré agré goo xamante ne goo xamante ni Cheikh Awa Balla dégg naa mu wax ci ba xaw na mu koy wax. ci bëccëg. ci waaye lu lu lu lu ne amee solo kenn da koo gisul. waaye lu ne amee solo kenn da koo gisu nit ki sax lu mu tàmm. nit ki sax lu mu tàmm. day yaakaar ne rëyut. day taa day yaakaar ne rëyut waaye daaru wuti rek ngay agsi. waaye nee daaru rek ngay agsi. toog ci garab. toog ci garab toog ak njabootu borom daaru gépp toog ak njabootu borom daaru gépp ñuy kaf ak yow ñuy kaf ak yow bokk ak yow lekk bokk ak yow lekk bokk ak yow ree bokk ak yow ree bokk ak yow naan bokk ak yow naan te boo génnee doo leen yab fenn nee te boo génnee doo leen yab fenn ndax kenn ku ne ma nga ca la ko maamam digaloon kon nag sëñ Ndiaye dara kon sëñ Ndiaye dara jërul ñuy guddal mbég moom mbégte rek mbég moom mbégte rek la nañ leen ñaanal ñoom ñi nañ leen ñaanal ñoom ñi ànd bi ñu ànd ak yow ànd bi ñu ànd ak yow te borom daaru rek tax te borom daaru rek tax te sëñ Tuubaa rek tax te sëñ Tuubaa rek tax yàlla na ci sëñ Tuubaa jàppal boppam yàlla na ci sëñ Tuubaa jàppal boppam ko boppam téyel ko boppam. ba ni nga ko waxee. ba ni nga ko waxee. man de li ma xam. moom de li mu xam. xam naa ne lu ci bari du ko wax. xam naa lu béy du ko waaye li ma wóor. waaye li ko wóor. bu ngeen dellee Ndakaaru. bu ngeen delloo Ndakaaru. bay ngeen gën takku. booy ngeen a takku. gën a laxasaayu. gën a gën a góorgóorlu. gën a góorgóorlu. te xam ne seenub liggéey. te xam ne seenub liggéey. tàmbalee ko tàmbalee xam naa ne moom mii. ndax xam naa ne moom mii. li Serigne Bassirou nar ci moom. li Serigne Bassirou nar ci moom. ak li mu bëgg ci moom. ak li mu bëgg ci moom. su àggee. su àggee. bu soobee yàlla. bu soobee yàlla. fii lu ñuy def ci dëkk bi. fii lu ñuy def ci dëkk bi. moo koy jiite nit moo koy jiite nit ñi topp ndax yéen a jooju la ndax yéen a jooju la ci am te naa ne te xam naa ne ñoom duñ waxantu duñ waxantu ndax li may wax ndax li muy wax moom day moom day li muy sunu waajur a tax li muy sunu waajur a tax duñ ci guddal duñ ci guddal waaye ku neexaandal la waaye ku neexaandal te njaboot gi yëpp xam nañ ko te njaboot gi yëpp xam nañ ko bokk na ci jamono bi fi Serigne Abbas di door a bokk na ci jamono yi Serigne Abbas doog jóge fi ñun ñii lim ñu njëkk a wax nee na gi lim leen njëkk wax mooy yéen samay doom mooy yéen samay doom na ngeen ma dimbale na ngeen ma dimbali bu fi kenn ñëw bu fi kenn ñëw naan ma sama baay nangam naan sama baay nangam wala nangam nangam ndaa nangam nangam maag yéen ñëpp nee moo maa ngi doomi dëkk bi yëpp doomi dëkk bi yëpp yéen a yem ci man yéen a yem ci man gënu fi sañ sañ kenn bu fi commandé kenn bu leen fi wax kenn lu ko naqari bu fi wax kenn lu ko naqari bu leen fi ndax yéen ak ñëpp lu ngeen fi sañ rek lu ngeen fi sañ rek doomi sëñ daam doomi sëñ daam wala doomi sëñ Ousmane sëñ Mouda Balla wala doomi sëñ Mouda Balla sañ na fi lu ko ëpp sañ na lu ko ëpp sama kër gi ko ñun ñëpp ñu ñaanal ko yéene bi na ko sunu borom àggal sëriñ xol yëpp sedd na sëriñ Moussa xolam sedd na jabar gi yëpp ak jom moom rek tax nga mën kon nag yàlla na ci borom daaru jàpp te nga am na ci kaw ci loolu ba ni nga ko bëggee nga yoo xam ne leen du sooxe te santal ko njaboot suñu daam gépp santal ko rak yëpp ñoom ñëpp taxaw nañ ndax kenn seetaanu ndax kenn seetaanu sëriñ xaas a ngi nii ñoo fi yendoo sëriñ xaay ci jigéen ñi soxna nday mais kenn manqué jeex kon jërëjëf liggéey bi na jërëjëf kon waaw boo ah sëñ bi day laaj ko ko ay suba. mu ne ma yow Baye Fall ma bëgg ma mbàkk sa dafa yu ko ah, lépp di ma ko fekk. kare bi joxe caay bi jumaa ji dama waxal ay bo ay doomam téye ma ay soxnaam téye ma ay dongaam téye ma man oo ma doom ay donga laa am donga bu fi donga. Baye Laat nee na bëgguñu coono wax sax. te yàqu nañ ko mbàkk yàlla ci taxawaay yàlla. waaye nee dañuy sof ci kàddu Serigne Mahmoudane. ne wama sayidna ila bi ma xalif na. maanaam dañuy seede rek li nga xamante ni moom lañ gis. ne dañuy seede rek li nga xam moom lañ gis. ndax euh, xaj na bëriwul fu ñuy gis suñu tànk. ndax ne xaj na bëriwul fu ñuy gis suñu tànk. liggéey bii it. liggéey bi it. sëriñ Basiirou la koy defal. sëriñ Basiirou la koy defal. mu jox ñu ndigal ñu ànd ak moom. mu jox ñu ndigal ñu ànd ak moom. waaye gis nañ ci moom. waaye gis nañ sëriñ Aïdara. jikkoy boppam rek. jikkoy boppam rek. maanaam mën nañoo téye fii. mën na moo téye fii. maanaam ci lu weesu ginnaawam loo xam ne dañ ko koy jëwee. ne ci lu weesu ginnaawam loo xam ne dañ ko koy jëwee. maanaam ñu wax ne ni mu dundalaate garab gi. lii wax mooy ni sa yaay dundalaate garab gi. maanaam mbokk yëpp daje. mbokk yëpp daje. Euh, daje ci genn garab. daje ci genn garab. ñu gën fee nekk ñu ñi sax ay tuut tànk. ñoom ñu gën fee nekk tuut tànk. waaye kenn ku ne dalay may ci boppam loo xam ne. waaye kenn ku ne dalay may ci boppam loo xam ne. yàkkamti suba jotaat. da ngay yàkkamti suba jotaat. man man daje ci garab man daje ci garab. kon du sëñ Bass man du wax ci ñëpp wax na waxuma ci sëñ Bass waxuma ci mbooloo mi waaye jikkoy boppam. nee waxul ci sëriñ Bassirou waxul ci mbooloo mi. waaye jikkoy boppi sëriñ Aïdara lay wax. akuk insaniya maanaam akuk niteem. nee akuk niteem. maanaam may na ko. may na ko. maanaam lu mu bëgg ci ñi mbokkal lu mbëgg bëgg ci ñi mbokkal mu am ko ci mu am ko ci ah, waaw moo tax dana leen ko seedeel yéen ñi fi teew moo tax li yéen ñi fi teew dana leen ko seedeel suñu xol sedd na ci moom lool suñu xol sedd na ci sëriñ Aydara ci jikkoom ci jikkoom ndaxte nag ndaxte nag euh, yàlla def na noo xam ne yàlla def na noo xam ne am nattu la ci am nattu la ci ñun bu jikkoom meloon neneen bu jikkoom meloon neneen kon it duñ toog ci wetam. kon it duñ toog ci wetam. dañuy dem doxi suñu yitte. dañuy dem doxi suñu yitte. waaw waaye nag jikkoy boppam. waaye jikkoy boppam nag ndax ne jikko ju rafet rek la kon ñu ngi lay sant bu sëñ bi bëgg ci yow. ne li sëñ bëgg ci yow. ak li mu bëgg ci liggéey bi. ne nga am ci lu kawe sa njort. ne ban def yéen ak yeneen. jërëjëf Cheikh Abdoulaye. ne li sëñ Blaat wax ci lépp wasalaamaaleykum sëriñ Teex jërëjëf kon sëriñ Moustapha fu waay toll nga tàllal loxo sëriñ bi mi ñaan fu waay toll na tàllal te wax amiin ci fas sëriñ Basiru te ñu ngi yàgg fi lool ba yéenim ci borom daaru mu àggale lépp waaye sunu yéene ci moom ñu àggale barke maam Cerno Biraay amiin amiin amiin waaye soxna maam Jaañ jërëjëf ñu ngi fasaaleel yow ak Oustaz Diop sëñ Aline Diop tabarkal amin amin amin amin amin jërëjëf